tànk yi nag tànku jàmm rek tànk massawu nde ku ne xam na ni ngeen yégee euh, Cheikh ni mu génnee àdduna euh, Sénégal yëpp nag bokk ko ak yéen nde ñëpp xam nañu circonstances yi mu génne àdduna jarul ñu ciy dellu si waat waaye xam leen te yëg leen ne rek Sénégal bokk nañu ko ak yéen maire dëgg la nga seexam bi it na waaye jàpp leen ne Sénégal moo ñàkk moo tax ñu sol suñuy dàll euh, ci biir gëm sa bopp ak ñi màndal ñëpp ñëw pour massawu leen di ñaan suñu borom yu dal ci seen kaw e ku ne xam na ne euh, tiis woowu euh, li ko indi donc duñu fi nekk di nettali parce que Sénégal yëpp xam nañu li xew dañu ñëw rek ngir massawu leen parce que suñu petit frère bi di Alassane Bari li ko dal metti nañu ñun ñëpp waaye xam nañ ni yéen la gën a metti waaye di leen xamal rek ne euh, Sénégal ñoom ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ku ci nekk mu ngi bokk ak yéen métit wi yàlla nag moom mooy euh, dogal te bu dogalee jàmm moom mënul lu dul nangu rek kon ñu ngi leen di xamal ne daal tànk yi ñu seq ba ñëw fii ci yéen tànku mbokk la tànku doom la tànku euh, xarit la ngir massawu leen lii nga xam ne dal na ci seen kaw euh, kenn bëgg ko woon kenn nit yéenewu leen ko waaye jàppal ne euh, ca la mu newoon wala la ko dal ma ko dalee ci xare boo xam ne doomi senegal ñoom ñoo ko doon def ci loolu ñu jàpp ne ñun jaadu na ñu ñu ñëw ànd ak délégation bi ñu àndal ci gëm sa bopp ngir massawu la massawu la nag ci lii nga xam ne moo dal ci sa kaw dal ci njaboot waaye jàppal ne dalul ci sa kaw yow dong ci kaw Sénégal la dal moo tax tànk yi ñu seq ñëw ngir massawu la ci lii nga xam ne euh, suñu borom dal na ko teg na ko ci sa kaw di ñaan suñu borom xaare ko aljana boole ko ci eh, aljana yi gën a kawe